Touba ca kanam jóg na ngir xeex jàngoro bi nga xam ne moo di coronavirus fii ci Touba Mbacké ñoom nag ñu yëkkati lu toll ci ñeent fukki millions ak juróom ci suñuy koppar jënd ci ay produits ak yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ koy xeexee jàngoro boobule jëf ju ne mel nag ñu ciy roy xalifa général des mourides Serigne Mountakha ba Bassirou. Touba ca kanam bi sëñ Mountakha yëkkatee loolu mu yëkkati jox ko état tam tolloon ci 200 woote woon ne ku ci man na ci murid yëpp dugal loxoom boobu la ci kanam. tàmbalee waxtaan ak a xool yan yoon lañ koy jaar. 45 euh, millions lu toll ne 45 millions ci xaalis lañ yëkkati def ci wante ni ñu xam ne liggéeyu Touba ca kanam ñaare somme bi ñuy wax ne moom lañ ci def foo ku fekk da koy ëpp da koy ëpp ndax la ca waroon a ànd ci li ñu war a fay ci ay nit ngir ñu taxawee ko yooyu yëpp lu ñuy jaayantale liggéey lu ko sëriñ bi kon ku ko doon xayma dana romb fop quarante cinq millions yi ñuy wax. bépp produit boo xam ne buy seetal la muy eau de javel gel antiseptique yi saabu dioxyde de chlore ba ci ay masque loolee lépp jënd nañ ci lim bu takku lool. toll na ci lu mel ne li ñuy wax euh, saabu ndox ndax bi ñu waxtaanee ñoom dañoo gis ne bu dee saabu saabu bi nekk saabu ndox moo ci gën ñu jënd ci lu tolloog ñaari junni carton nekk vingt quatre mille bouteilles vingt quatre mille bouteilles jënd nañ ko ci bu dee eau de javel jënd nañ ci mille carton nekk douze mille bouteilles. bu dee euh, gel bi ñu def ci loxo gel antiseptique yi jënd nañ ci lu tolloog 3312 flacons mais yooyu du yu ndaw jënduñu yu ndaw yu mag yi lañ jënd ndax dañoo bëgg fépp fu ab flacon nekk rek ñu bari man caa man caa jariñu euh, jënd nañ tamit euh, li ñuy wax dioxyde de chlore produit désinfectant la boo xam ne day rey doomu jàngoro. loolu tamit def nañ ci lu tolloog 27000 litres masques yi ñuy takk am nañ ci commande 2000 masques ndax personnel bi war di liggéey liggéey boobu dañ leen ciy jox. donte sax niñ koo xamee fi mu ne man eh, dafa jafe waaye commande bi jàpp nañ ne li ci am na ci lu ñëw am na ci loo xam ne balaa ñuy tàmbali liggéey yi dina ñëw wala ci biir liggéey dinañ ko jot waaye waajal nañ tamit luy mille deux 1200 saagi ceeb yu cinq kilos carburant bi nga xam ne moo war a def liggéey bi yëpp préparé nañ ci luy tolloog 3000 litres ay produits phyto phytosanitaire tamit am nañ ci benn loo boo xam ne dina man loolu yëpp eh, diirub liggéey bi nag fu ñu ci toll bu demee ba gis ne laaj nañu yokk ko dinañ ko yokk. su weesoo produit yooyu nga xam ne jënd na ko Touba ca kanam lëkkaloog service di d'hygiène fas yéene pompe dëkk bi rawatina bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje. ndax ànd nañu ak waa service d'hygiène pour fas yéene pompe dëkk bi yëpp ci bërëb yi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje ci jumaa yi ci morgue yi ci marché yi ci gare routière yi ba nga xam ne fépp fu mbooloo yi daje ngelaw li ñu noyyi moom danañ fexe ba pompe ko ba doomu jàngoro ju ci nekkoon. ñu jëm ko ñu jëm koo rey appareil yi nga xam ne moom la yor di ko pomper euh, waa service d'hygiène am nañ ci ñaar yu mag ñun ñoo leen di jox oto ñu aj ko ci kaw oto yi def liggéey boobu waaye bu dee yeneen yi nga xam ne nag yan ruq-ruqaan yi oto mu dugg yooyu am nañ liy tolloog fukk ak juróom benn appareil yi nga xam ne dañ koy téye ci loxo yooyu am nañ ci yoo xam ne appareil essence la am ci yoo xam ne appareil manuel la bëgg nit ñi gëm nii jàngoro ji am na nanu ko gëm defe naa ni lu toll nii ñu toll nii amee amee fulla am fayda nii amuñu temps bu ñuy perdre bu ñu demee ba jël seen matuwaay jël seen doole ak seen alal teg ko nii gëm nañu ni am na. bu nu gëmee ni am na ba noppi nu gëm ni dispositif de santé maanaam kër docteur li am ci Sénégal man na euh, métti mën na maîtriser situation bi bu nu ko méngaleeg fenn. naan ñoo nu ëppale lee ñoo nu ëppale lee bu doon ëppale rek ak man-man am na réew yoo xam ne du fa àgg fa mu àgg li nu am la ñeneen amul nan ko boole mu mel ne tey jii lii màndargaal na ko bu nu ko boolee daanu dem. ndimbal gi nag daara yi lañ ci jiital ne tànn nañ lu toll ci junniy daara fas yéene leen jébal ndimbal gi waaye noonee lañ tànnee yeneen bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje muy jumaa yi jàkka yi morgue yi rawatina bërëb yi nga xam ne bërëbu fajokaay la. moo tax ñu ne ñu tànn lu toll junniy daara ànd ko ak sëñ Mamor mi nga xam ne moom la sëñ bi teg daara yi ci loxoom ak waa rabitatul madarisul quran yi ñoom ñoo xool nan lañ koy organiser. bu dee jumaay Touba ak li ko wër bu ñu waxee jumaa ji li ko wër mooy kër njabootu Serigne Touba gi ko wër te am ay barab bi suturlukaay yoo xam ne nit ñi dañ fay faral dem boole ci morgue bi boole ci kër Serigne Touba gi boole ci tamit armée lu Baqiya yeneen jumaa yi nga xam ne ñoo ne ci jumaa yi ñuy jullee ajjuma jumaa yooyu 120 euh, jumaa lañ yoo xam ne dañ ciy julli jumaa morgue yi ci dëkk bi recensé nañ ci li tollu juróom-ñett structure sanitaire yi nekk ci dëkk bi hôpitaux yi euh, centre de santé yi poste de santé yi ba ci case de santé yi recensé nañ ko yii yëpp nag bu ñu koy def dañuy ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko xam euh, force de défense et de sécurité yi nekk ci dëkk bi gendarmerie police pompier service d'hygiène euh, nekk ñu wut ñu xayma ne ñoom huit lañ boo ci boolee escadron ba la ca sorti ba liggéey bi nga xam ne nag Touba ca kanam mu ngi koy amal ngir xeex jàngoro bi nga xam ne moo di virus fii ci Touba liggéey bu ni mel mu ngi ciy lëkkalook ñi nga xam ne seeni xam-xam màcc na ci wàllum cet lii nag nee ñu ak ndorteel la rek ci jëf waaye ñoom li ñu ñaan moo di bala ñoo jëfaat ci mbir mi yàlla na ko fi yàlla yemale.